gan gi Abdou Sané ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. am nañu mbégte dalal encore une fois ci réew Rewmi FM tàmbali waxtaan bi nag ak euh, manifestation bi Yewwi Askan Wi naroon tey ci ndakaaru ñu aaye leen ko préfet bu ndakaaru nee na liggéeyu BRT bi moo tax lan ngeen ci jàpp ak lu ngeen nar. wala pour lu mel noonu bettul kenn parce dañu toll ci jamono boo xam ne préfet bu nekk. mi ngi seet lan la mën a def pour luy neex Macky Sall pour mu mën a am lu ñuy wax ñoom avancement ci ñoom moo indi préfet bi nekkoon Dakar ci affaire euh, Ousmane Sonko Adji Sarr def lu ñuy wax zèle ba tey mi ngi nii nekk na gouverneur kii tam ci tànkam lay topp ni donc Macky Sall day nekk pare ne la lii lii mooy sama yéene nga def ko yow xoolool loo xam ne sa xel loolu la may mais yaa ngi xool lan moo war a neex président bi rek jaax na surtout yow sa diggante ak président nga gëm gëmoo sa diggante ak yàlla. loolu moo indi dëkk bi yàqu tey ba finalement excellence mënatul am parce que kenn yaakaaratul ci effort boobu ñu mën a def pour nga mën a avancer yaa ngi seet simplement lu mën a neex Macky Sall rek pour mun a am dëkk bi yàqu na et malheureusement tey Sénégal dafay am blocage parce que bu yàggee ñu am benn cadre ci dëkk bi parce que les vrais cadres ne sont pas prêts à vendre leur âme. Hmm. kon daal gëmoo leen mbirum travaux BRT bi. non yooy yëfu caaxaan la waaye quand même yooyu cinéma la tey suñu newoon manifestation boobu c'était pour diriger pour dem kër Ousmane Sonko kon ñu autorisé ko mooy comme li amoon fi maire rek. Hmm. boo ne ngay def quelque chose contre Ousmane Sonko soxla loolu sax ngay bind doo bind état ci boppam mooy organiser manifestation bi ñëw bëgg ki nga bëgg a donc pour nga mën a comprendre dëkk bi fu mu toll tey quoi parce que ñun dund nañu ko fii au niveau de la mairie. dinañ ci ñëw état ci mhm. ñëw ba ci mairie dinañ ñëw si loolu. ñeneen bu ñu newoon tey rencontre bi foofu lay amee noonu. Mhm. mais pour se diriger pour contre Ousmane Sonko doo gis kenn ku interdit doo gis benn policier bu génn noonu la ñuy bàyyee manifestation bi mu am. léegi dañoo nar a manifester dañuy toog deltu ginnaaw respecter li préfet wax. voilà pour pour wax la dëgg-dëgg heure bi ngi may wax noonu ak yow man maa ngi nekk Ziguinchor te dama nekk responsable su may wax toujours sama wax dafa am fi ma koy teg. Mhm. diggante démb ba tey jot moo waxtaan ak kii que ce soit au niveau national pour ma mën a xam ñoom lan la ñu jàpp. man maa ngi nag Ziguinchor. Mhm. yaa ngi Ziguinchor euh, Ziguinchor booba yëngu woon sax fan yi ndax concert de casserole yéen a tàmmoon di tëgg waaye tey yéen la ñu tëggal naka ngeen dundee xew-xew boobu ay étudiants ñoo doon ñaxtu ngir bëgg mairie bi fayal leen seen euh, location. bon il faut préciser une chose boo nee Ziguinchor mi ngi doon non non non li amoon mënul yëngal Ziguinchor. premièrement deuxièmement deuxièmement deuxième précision. Hmm. boo nee ay étudiants université Assane Seck bu Ziguinchor moom la ñu xam fii comme ay étudiants ñoom ñu ngi jàng normalement. parce que nekk Ndakaaru. voilà quelques étudiants yu nekk Dakar parce que même étudiants yu nekk Dakar. du nañu bëri ba nga xam ne. Hmm. c' est pas la majorité nekkul ay manifestants ñoo ko organisé état ci boppam moo ko organisé. lu tax nga ne état ko organisé. amul lu tax dund naa ko vivre naa ko en direct gis naa nii état moo manifesté woon am na lu tubaab di wax le verbe réel et le verbe apparent. wala hmm. la réalité état moo organisé manifestation bi loolu moo indi kenn terewul quoi que ce soit sur trois kilomètres. jóge depuis lycée Niabo ñëw ba mairie ça fait à peu près plus de trois kilomètres amul dara lu mun a arrêté ba ci buntu mairie. demul benn takk der bu génn wala ku leen jéem a yemale mais état mënul réprimer boppam <laughs> loolu mooy théâtre bi c'est-à-dire que c'est du théâtre état mënul ah, organiser xëy na bi xëy na yëguñu ko ah bon ak état lu mu am ci renseignement hmm. te pour nga ñëw mairie Ziguinchor il faut nga traverser gouvernance il faut nga traverser préfecture il faut nga traverser commissariat il faut nga traverser brigade ñun ak brigade gendarmerie état major gendarmerie ñu xam Ziguinchor hmm. face à face kan moo yore kan moo yore sécurité nationale boobu tam la ngeen bëgg a wax ni Ousmane moo ko yor même bu nekkee Dakar moom moo war a woote. quand théâtre la c'est-à-dire que état mm. ci boppam. moo organisé manifestation bi contre la mairie parce que ba léegi mënuñu accepter que mm. Ousmane Sonko gagné mairie bi mënuñu accepter sax tuuru Ousmane Sonko. Mm. pour ñoom lépp loo xam ne jege na Ousmane Sonko il faut brûler il faut tuer utiliser même des armes à feu pour tirer dañu frôler loolu yëpp fii. parce que amul lu amul ci groupe boobu yëpp. Hmm. amoon na ay mercenaires amoon na ñoo xam ne yëpp tout et tout et tout et tout et tout c'est tout. d'accord léegi euh, ndax am am ngeen solution ci mbir moomu seen leader wax na ci démb waaye yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci mairie ba dëkk ak ñooñu xëy na lan ngeen jàpp ne tey mooy solution ci mbir mi. ñun amul lu ñu mën a jàpp leader bi mu am lu mu jàpp. Hmm. waa Ziguinchor Ousmane Sonko moo leen doy moom la ñu élire te ñun ñëpp lu ñuy def on s'inspire de sa volonté te volonté mooy la volonté aussi des Ziguinchorois. Ousmane Sonko dafa ñëw maire yi mu wone pour la première fois que fu ñëpp doon foog ni bu ñu la falee jouissance mooy am moom au contraire mu def ci sacrifice du téléphone du carburant du passe avion du dara cabinet bu pauvre lépp la sacrifié pour que mu mun a am lu muy investir pour waa Ziguinchor léegi ma préciser une seule chose man mi di wax ak yow. Mm. boo gisee ma nangu ànd ak Ousmane Sonko. boo gisee ma nangul nekk coordonnateur dafa am ay valeurs yoo xam ne yooyu lay incarné yoo xam ne man yooyu aussi ku ko gëm rek am nga ma dans l'ordre hmm. chantage surenchère pression ku ci allergique rek am nga moom hmm. donc loolu la gars yi bëgg a ci moom mu bañ purement et simplement donc loolu lu leer la te encore une fois il faut retenir que état moo bëgg def un règlement de compte contre Ousmane Sonko mais waaye état dafa yaatu di kan la leader yi nekk foofu Euh, leader APR yi nekk Ziguinchor ngeen ci njoxtu ñoo nekk si ginnaaw étudiants yi. soo ma ne leader APR xanaa nga jàngal ma ci tuuti de man de Ziguinchor la dëkk fii laa juddoo fii laay politique mais mosuma xam ne APR am na fi leader. bu ah, amul ay leader am na ñoo ci xam non bu dee am na ñoo xam jox ma ay. tur Ka ak ñooñu lan lañu. waaw waaw bon yaa ma ko ban fonction la occupé kooku ngay tudd noonu comme ça ma gën a ma vérifier après ban fonction waxal comme yaa ngay def yaa a xam man boo ne Abdou Sané yaa ngi naan Abdou Sané coordonnateur communal Pastef lu précis la mais ñooñu joxe joxe seen titre pour ma mën a xam est-ce que ay leader la parce que leader dañ koy natt liider dafa am titre bu mu yor leader dafa am hiérarchie bu mu nekk man de bon yow yaa ma ko yëgal li ma xam mooy hmm. APR Ziguinchor état moo ko représenté c'est-à-dire que état mooy liggéey à la place de l'APR. ndax loolu moom am na. ndax lan ñu amee élection état ci boppam la puissance publique moom la ñu utilisé pour mu mun a travailler pour l'APR bu ñu amee ay. contradiction politique état mooy kii di marche bi état moo ko organisé loolu moo indi état mënul organiser ba pare. Hmm. organiser une répression ou bien organiser un encadrement pas du tout donc kooku c'est flagrant. d'accord donc ñun ñu ngi dund adversaire Ousmane Sonko à Ziguinchor c' est l' État mais du. Hmm. quoi que ce soit parce que d'un point de vue sociologique et des rapports politiques Ousmane Sonko amul kenn ku mën a def face à. lui amul maas foofu daal loolu nga bëgg a wax amul maas Ziguinchor. non mënu ko am sax. c' est pas possible d' accord. alors ñu des ci moom Ousmane Sonko mbiram Sweet euh, Beauté tamit ba léegi jeexagul ay avocat dugal nañu euh, seen ay euh, observation wante itam boole ci ay éléments de preuve muy ay audio peut-être yu bàyyeekoo ci ki ñu naan MC mbir mi di gën a jëm kanam instruction bi bouclé nañ ko procès ngeen di xaar wala njortu ngeen ne moom amatuñu beneen pexe bu dul def non-lieu yëf jeex. noonu lii rek moo mën a am jaax na parce que yëpp yi. Hmm. caaxaan bi dafa bëri trop fii ngay toog nga xam ni dañu am ay présidents yoo xam ne dañu faible dañu vulgaire sax yow nga nekk président ak lu titre président sumbu nga ne da ngay def complot nga faible faible ba même pour concevoir un complot sax mënoo ko finalement yow lan nga mën comme président lan nga mun lan nga capable médiocrité absolue donc tey dossier bi dafa vide ba ñoom ñoo am problème aujourd'hui pour xam nan la ñuy gérer affaire bi donc amul beneen question boo xam ne ñun mën nañu posé wu pour ne lii ak lii ak lii ak lii ak lii dossier bi moo vite ensuite ñoom ñoo nag di koy traîner en longueur mais dossier bi buñ ñu waroon classé sans suite du tey c'était dès les premiers mois parce que mosul am lu ñuy wax ni yëpp dara amu ci simple complot et complot mal fabriqué parce que fait par des gens médiocres loolu mooy la triste catastrophe donc waxal leen lu dul lii parce que man je veux toujours su may wax moo wax loo xam ne am na fulla am na fayda. et ah, amul fulla amul fayda te mu mën a xëy na sax tere Ousmane Sonko bokk ci élection présidentielle 2024 nga ne amul fayda. mais mais élection ban ban lien am ak li ngay wax. ah buñ ko buñ ko si buñ euh, fan lay bokkee. am na sax am na sax ñu bokk ci yéen ñuy ñuy xalaat loolu di ndax. Euh, suite bi mën na nekk barage pour Ousmane Sonko. kan moo ñemee xalaat loolu fii Sénégal te. ah am na ñu bokk ci Pastef ñu ma gis. ñu ñu yëkkati kàddu yooyu. ne ne dañ ko bëgg a utiliser pour barrer ko en 2024 est-ce que yéen a ngi sóoraale loolu. man mënu ma sóoraale loolu parce que xam man la laa sóoraale. Hmm. que 2024 Ousmane Sonko day nekk président. nekkul pour nga nekk président il faut que d'abord Macky Sall accepter ou pas Macky du yaayam du papam du ay rakam moomuñu Sénégal donc Macky Sall tuuti na pour mu mun a déterminer le destin des man maa ngi toll foo xam ne 2024 installation de Ousmane Sonko au palais loolu mooy différence bi wax ma ay candidat ou pas installation de Ousmane Sonko au palais. 2024. yaa ngi ci yaa ngi ci ay prestation de serment je te dirai que Ousmane Sonko au palais. yaa ngi ci ay prestation de serment kon jamono ji. dépassé na prestation de serment. ma ne la 2024. <laughs> nekkul Abdou Sané la. mais c'est la volonté pub volonté populaire bu Sénégal. Hmm. ñoom ñoo tànn ba pare. comme quoi Ousmane Sonko moo leen doy Ousmane Sonko mooy moom la ñuy bëgg a gis au niveau du palais moo fay nekk. Mm. te loolu moo mën am leneen mënoon am lu dul loolu pour mu leer dès présent. voilà pour mu leer mais président Macky Sall bàyyeegul ndax ay ñooñam ku mel ni ministre de la justice constitutionnaliste bi Ismaïla Madior Fall investir na ko moom ak ay ñooñam ngir mu nekk seen candidat en 2024 est-ce que bu bokkaatee am ngeen chance. waaw defal na yow est-ce que suñu la nee ko loolu di ko fayal du kii la nekkoon candidat. waa Rufisque vomir ko léegi kadduwam ak décision am ban valeur nga koy jox xam nga parfois yéen ay compliquer les choses. Hmm. nit koo xam ne mi ngi dëkk Rufisque mu ne dafay nekk candidat gars yi sànni ko ci bali waxum yéen bu ko réyal mais waxum ban valeur lay am. ci débat ci débat troisième ñu non ñëw non débat ak débat. Hmm. débat dafa am parole crédible ak débat boo xam ne wax waxu yaa fuus la. Hmm. nit koo xam ne mosul gagné dara chez lui tekkiwul dara chez lui mu jóg wax. ngeen relayer waxam ba final ba ngeen koy jox valeur parce que tey keneen ku nekk États-Unis ku xamul Major day naan ah ko ku am important ñu naan la déedéet léegi la jógee ci élection ñu toroxal ko <laughs> kooku boo waxee kan lay waxal il part dans le vent yene a koy réel c'est dommage malheureusement parfois yéen ay tendre micro ñi warul wax ngeen bañ a tendre le micro ñi war a wax mais investiture lañ def démb donc kaddu Ismaïla Madior euh, Rufisque. ça ne vaut absolument nga dóor sa d' accord léegi débat troisième mandat bi moom su ko investir ak ñeneen ak ñeneen yeneen wax yi euh, est ce que gënul di leer ne euh, moom ñetteelu candidature président Macky Sall nar na koo wuti. heureusement sa question bi da soo ma ne woon le peuple xam ne yow le peuple ne t' a pas investi. danañ affaire la c' mooy xam nga lan moo war a am fii. Hmm. man maa la ko wax Macky Sall mënul nag candidat pour pour élection yi di ñëw Macky Sall sax ci boppam xam na loolu tubaab loolu la ñuy wax prétention parce que ambition boobu mooy loo xam ne c'est réaliste prétention bu mu am ni mënu ko réaliser. bu décidé dem nag ah bu décidé dem nag. non mënul am dafa mel ni yow tey soo nee xale bi waaye bu fekkee dem na pour visiter la lune te mu wóor la ni yow amoo tax avion wala hélicoptère ngay ngay xalaat dem daal la lune. loo ñu tontu la mënul nekk moom laa la wax du am du am du am xanaa doy na. waaw léegi su ko da ngeen parce que lan la le peuple souverain moo décidé ni loolu du am te le peuple souverain moo yore kaddu gi. surtout hmm. su doon su doon dëkk bi papa moo ko moom wala yaayam nga leen affaire privée la mais papa moomu ko yaayam moomu ko rakkam moomu ko jabaram moomu ko ay dooma moomuñu ko nga bugg lan parce que moom bëgg na lii rek loolu mooy am yàlla tere. kon keroog la Sénégal di cessé être Sénégal mu nekk Sénégal avec S minuscule. Hmm? waaw waaw. Sénégal avec S minuscule moom nu muy mel. mooy Sénégal bu existé wul. c'est tout yàlla bu Sénégal bu existé wul. Mhm. jërëjëf ñu ngi lay gërëm Abdou Sané amoon nañu mbégte dalal la si matinale Rewmi FM yow yaay coordonnateur PASTEF Ziguinchor euh, di itam environnementaliste donte tey sax euh, waxuñu environnement politique la ñu gën a wax waaye ñu ngi lay gërëm bu baax a baax. maa ngi lay fay di lay gërëm encore une fois di lay jox rendez-vous deux mille vingt quatre nga di ñëw palais ñaan audience Ousmane Sonko recevoir la nga accordé ko la première interview.